name Usman Abbas from Nigeria. Usman Abbas ab talibe Baye la mi ko ca Nigeria ay photo Cheikh Ibrahim Niass Cruz mbaxana lay jay mat na léegi fukki at ak juroom mi ngi tew ci mawlid yi fi ci Medina Bay. Fi Medina Bay di commencé jay di ko chaque mawlid gam di ñëw ne ziyaara fii di jay affaire euh, euh, photo Baye Niass. hanyeef sa affaire dai jaye de commencé jaay ko so yona gam fi madina baye noon liggéey bu muy def nag bëgg Baye ñas rek moo ko ci yóbbee te yàgg na ci njaay mi poto bi mu jënd ko yeneen bi mu dem ci néegam moo lefen bi mu teg ko foofu yeneen bi mu dem ci bitig moom mu teg ko foofu pour loolu rek loolu moo tax mu indi ko poto bi période bi nag mi ngi gis bopam bu baax ci njaay mi mune ma sha allah lo indi ci so fekke affaire ignas la gam wat da fay jar da fay jeex tak waaw mu ñuy xamal ne ci Nigeria Hausa yep ay taalibe bàññes lañu mom sax mbégte la am ci bu mu doone talibé molana Cheikh Ibrahima yàlla rek moo xam comme nu muy napp ay Cheikhou Ignace yàlla rek moo xamoo loolu loolu moo tax sant yàlla mu ñëw fii nii pour ay gamoo bëggoon na waaw bëggoon na Ignace carrément yàlla rek moo xam